asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi jotaat nañ ndigal ci sëriñ Sidi Mbacke xalifab Cheikh Abdoul Ahad yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm si ci rakkam ji nga xamante ne bi ab xaritam la di taalibeem di sëriñ Amsatou mbake moom Cheikh Abdoul Ahad mu toog nag ci jataay bii toog ak mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Ahad toog ak sëriñ Sidi mbake moom Cheikh Abdoul Khadir ak mbooleem jabootu sëriñ Touba gépp ak mbooleem dongoy tarbiya yi mas a jaare ci loxo Cheikh Abdoul Ahad te sun borom defal leen tey jii ñu nekk waat ci kër ya wuutu fa mag ña àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasul ndigal loolu nag moo di liggéey bi nga xam ne fu masaa ak si fii Serigne Sidi dana ko def loo Serigne Hamsatu muy bàcc tooli Touba Darou Salaam Darou Salaam bokki barga bàcc gerte ga jëri ko roñ ngooñ ma roñ gerte ga loolu nag la Serigne Hamsatu toog aat bokkam yi fas ko yéenee woote waat wax ne daal liggéey boobu dafa jàpp ne ndabul xéewal la lu bàyyi ko Cheikh Abdoul Ahad jëm si ci moom te fasu ci yéenee def loxoom te bokk koog mbooleem njabootug Serigne Touba gépp moo tax nag muy fas yéenee yëkkatilu ay kaddu di ko jox rakkam di Serigne Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi ngi nii toog den ak ñun bu noppee danañ jox kaddu gi Serigne Modou Mamoun saar moom Baye Serigne saar moom Serigne Baye Serigne Baye Serigne Sarr moom Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ borom Jasaaka moom it mu yëkkati ay kaddu ci mbooleem ñi nga xam ne seen maam ya ñoo toppoon Serigne Touba Khadim Rasoul ba mu defal leen ngërëm te ñoom ñoo àndaat ak Cheikh Abdoul Ahad ba tey jii ñu làq ay ngërëm liggéey boobu nag jàpp nañ ko reen jii àjjuma fukki fan ak ñett ci weeru tubaab wi nga xamante ne bi moom la ñu nekk liggéey baa nga amee ca Daaru Salaam bokki barga dend ak ñii bi am Amsatu nag nee na mi ngi koy yëgal ñëpp di ko yëgal fépp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn waaye nañu xam ne nag waa tundu kajoor am nañ ci cër bu rëy te sëriñ Mourtala dana ci ñëw mu di sëriñ Abdou Lakram rakkam ja nga xam ne moo nekk ca kajoor mbooleem la wër kajoor ak mbaakol ak la nga xam ne ñoo war bawal ñoom ñëpp sëriñ bi dana leen ko yëgal incha allahu rabbi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yëpp yëpp yëpp bokki taalibe murid mën a nekk. di si leen toog fii ci ab jataay nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di balaako ñëpp ci njiital sunu kilifa sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa gannaaw bu ñu ko nuyoo ba noppi ak ñim jabootu ñëpp ñu ngi nuyu sëriñ Sidi mu sëriñ Abdul Ahad te toog fii nag ci aw turam ci kanam sëriñ Amsatu mi nga xam ne jëwrinam la di jëwrin kër gi li ñu fi tax toog nag toog nañ fi toogati fi ay mu jëm ci liggéeyal sëriñ Touba liggéeyal Cheikh Abdou Lahad liggéeyal Serigne Sidi ca Touba Daaru liggéey bi nag ñu ngi ciy woo jullit yëpp di ci woo taalibe yëpp waaye di ci beral nag loxo njabootu Serigne Touba gépp da ko ci Serigne Modou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ak ñi leen fi nekkal ñëpp ñu ngi leen di woo di woote nag ci turu sëriñ am sëtu mi nga ne mooy jëwriñu liggéey bi te delluwaat def sëriñ Abdou Lakram mu di jëwriñam ak suñu doom yëpp ñu leen di yëgal ni liggéey bi le treize décembre de su jógee nag te noppiwut kon nag lépp loo xamante ni wàccaay la kenn ku ne booy dem na nga ko bàyyi xel ñun suñu bokki béykat yi mbàcc nag moom kenn ku ne xam na ni góor a koy def waaye jëri na jigéen a ci gën a gaaw waaye boole bàcc ak ñu ngi lay woo liggéey bi nag na ngeen xam ne liggéey bi Sëñ Abdou Lahad la Sëñ Abdou Lahad nag amul tànk gannaaw na ma ko waxoon ci Sëñ Tuubaa rek at mu jot liggéey bi day yokk foo xam ne nag jariñu ak bëgg liggéeyal Sëñ Tuubaa la fa yóbbu kon kuy dem ku ne war nga koo mën a waaj te waajal nag sa bopp waajtaay wi nag képp koo xamante ne war ngaa mën a ñëw booy ñëw am na oto yoo xamante ni sëñ bi fàggu na ko ngir mu indi leen ñun bokki taalibe yi nga xam nag suñu borom dañoo dimbali ñu nekk fii ci réew mi ñu ngi woo ñëpp muy Saalum di Kajoor di Bawol di Mbagol te xam ne ni day amul lu gën a rëy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax ñun day wax dëgg yàlla suñu waajur xamoon nañ fañ tegoon seen tànk fa ko tegoon nag fa la suñu kilifa yi teg seen tànk buñ tegee seen tànk nag buñ tegee ñu teg sunu tànk te kenn ku ne bëgg ngaa liggéeyal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa liggéey loolu nag loolu mooy tawfeex gannaaw nag képp ku di taalibe baat bi yaa ngi koy dégg nga xam ne ndigal Sëñ Tuubaa moo tax ñuy woote da nga xam ne yaa ngi ci biir bàyyiwuñ kenn mënuñoo ber kii wala ñuy wax xëy na ni waaye Sëñ Abdul Ahad moom kenn ku ne xam na ni sa digganteeg moom am na loo xamante ni amel nga ko mu di ak pay ndax da doon jëwriñ Sëñ Tuubaa te nangoo jaboote taalibi Sëñ Tuubaa yëpp nangoo jaboote kilifa yi Sëñ yëpp kon nag bu fi bàyyee kilifa gu mel nii mu dellu fa Sëñ Abdul Ahad tolloon liggéey ba Sëñ Abdul daan liggéey muy liggéey liggéey bu ko ëpp sañ na ko woote bu koy wootee nag ci njabootu Sëñ Tuubaa gépp la ko woote waaye woote na ko ci jullit yëpp waaw kon nag da ngeen xam ne sëñ Abdou Karam mbir mi dellusi na ci sa loxo gone yi na ma ko waxoon rek ñooy sunuy rak waaye nag mbirum Sëñ Tuubaa daa amul tànk gannaaw te it liggéeyloo nit ki dafa war ndax mu xam nañuy war a liggéey ñun ñëpp suñu waajur yi dañ ñoo yaroon ci liggéey xamuñu ay taax xamuñu commerce xamuñu transport liggéeyal sëñ Tuubaa ci tool rek la ñu doon def kenn ku ne sëñ bi wutaloon na la tool boo ko béyee ba noppi da koy jox sab sëriñ bam bam la booleel ngir nag sàkk loo ñu ngërëm ngërëm loolu tey jii gis nañ ko bi mu fi jógee léegi yàggut waaye nag ah ñun de wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant ndax àddina li ci ëpp solo mooy ak taalibe ndax lépp ngi woon ci loxoom daa xawal la ci am njariñ mu di ak taalibe mu xir ñu ca bàyyi ñoo ko sëñ Tuubaa adduna nag moom lu ñuy fàggu néegu fi ndax daanaa wax ne ñaari fi ne ki jub ak ki jubadi ki jubadi boo ko faggaloon àddina li ci biiram day mujj rek yàqu ko waaye nag ki jub moom jërul fàggul dara ngir inna waliya llaahu llazii nasara maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. yi dañ ci munta ñàkk kàddu mbir mi seen waaye wax sëriñ bi dafa doy sëkk sëñ am sat noo ngi lay nuyu di nuyu sëñ siidi mi toog. di nuyu mboolem njabootu Serigne Touba leen seereel ak sunu cant gun sant sunu xol ci seenu taxawaay ak seenu doxin rawat na liggéey Serigne Touba yi nga xam moom lañ seq daaw liggéey bi ñu liggéey jëm ren jii bañ fi bañ ca demee daaw mboolem taalibe seen xol sedd na. la ko tax a sedd liggéey bu mat liggéey ba mel na war a mel baax ca la waaye la ci a am solo mooy njaboot Sëriñ Tuubaa gépp àndandoo laxasaayu dikk ànd ak liggéey bi loolu mooy li gën a rëy ci noonu sëñ Sidi mii teew teew toog teewe jataay bi tey yi ñuy woote firnde ci boo ko defee nag woote bi ñuy woote ñoo ngi koy woote ci ndigal sëriñ bi muy woote boo xam ne bii bu yaatu la sëriñ Abdou Lahad moom gisuloo boppam sëriñ Touba la gisoon amul menn mbir moo xam ne bii daan na ci wane boppam wala mu ci joxoñ boppam sëriñ Touba la ma sa gis moom la teg ba loola yàlla nangul na ko ba tax ni ñëpp nangul nañ ko nangu ne mooy sëñ Touba suñu woote daaw bi dong firnde la ci ndax kenn desul waaw non boo nee boo nee waa Kër Sëblaat day xat waaye waa Kër Touba ñëpp dikk loolu nag buñ may jox kàddu ne naa woote ci turu doomi taalibe Serigne Touba yi loolu firnde ci ci kon sama woote bii mi ngi bàyyi koo ca Daara Mbacke Kajoor ñun ñi sunu maam yi àndoon Serigne Touba ca Mbacke Kajoor ñun ñu juddoo ci loolu di doon dongee Daara. noo ngi yëgal népp liggéey bi sunub liggéey ñoo ngi woo ñëpp fas ko yéen ànd ak ñoom nañ ko doon ànd ak ñoom démb dongay taalibe tër bi yi nga xam ne ñu àndoon nekk ci gën a ker si ñëpp laatiit nag rawatina nun ñun liggéey bi sunub liggéey kon noo ngi soñ ñëpp di sant nag mboolem bokk taalibe yi ñu ànduloon démb nekkook moom nekkook ñoom muy liggéey bi jàll def nañ ko ci fasteef ak yitte ak bëgg lool son xol sedd na ci suñ tubaa nag boo gisee si wax naan moo Moussa santaan lu lu lu lu ñu léegi ëllëg danaan bis tey yii barab sàng nañ ma fa sampal am néeg nañ ko lay nañ fa nanga mi kaamil mu sotti ca bis ba Moussa digle lu lu lu jëm ëllëg loolu ba mu koy ba koy santaane Moussa woo kenn jox ko ndigal kooku génn keneen toog naan damay nekk saa wàll kenn ku ne boo déggee suñ tubaab digle na ñëpp daw dikk loolu moo taxoon suñ tubaab Moussa santaane lu jëm ëllëg loolu nag moo fi nekk ba léegi. sëñ Tuubaa baatam baatam mooy dox ba léegi daari daari Mbàkke Kajoor mooy wëndeelu ba tasi muy doon ba tasaar foo nekk daara nekk fa eh, ndigal loolee ba tey moo fi nekk kon ndigal lii ndigal loo xam ne njaboot sëñ Tuubaa gépp ko bokk kon noog ñëw ñëpp di tàll loxo ñëpp di sant ñëpp jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf mbokk yi ñoo jot a dégg kàddu yi bàyyi ko ci Cheikh Mamadou Mourtada fàttaliwaat nañu Cheikh Abdoul Ahad kàddu yi sëriñ Modou Mamoun Sarr jëm ci mbooleem koo xam ne sa maam àndoon naag sëriñ Tuubaa ca Mbàkke Kajoor ñuy xam ne rek ne sëriñ Amsatu nee na liggéey bi da ko daan taxawaloo doomam di sëriñ Amsatu moom sëriñ Seexuna moom Cheikh Abdoul Ahad tey jii nag ay magam ay ay rakkam ñoo ko fi wuutu waaye lépp mi ngi te nekkewaat seen loxo nee na nag mi ngi koy yëgal sëriñ Cheikh Anta Mbacke xalifa sëriñ Modou Rokhaya ca Daaru Salaam sëriñ Moustapha Mbacke moom sëñ Abdoul Karam ñii ku xam sëñ Abdoul Ahad xam seen wayjur yaak moom sëriñ Mame Balla Mbacke Mbar sëriñ Mouhamadul Mamoun saar sëriñ Amar Diagne Njaañ sëriñ Modou Gueye Wurkuñ sëriñ Naar Jenn sëriñ Alhaaji Jaw ak Serigne Sultan Diaw nee na ñoom ñëpp mi ngi leen ko yëgal di ko yëgal it Serigne Cheikh moom Serigne Abdou Latif ak Serigne Thierno Mbacke moom Serigne Mountakha moom Cheikh Mahamadoul Bassir Serigne Mame Mor Mbacke transitaire Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Moustapha Bachirou Serigne Mbacke di ko yëgal it Serigne Isaaxa Mbacke moom Serigne Moussa di ko yëgal ba tey itam Serigne Fallou Fall Mbawor Serigne Cheikh Khadim Fall Serigne Abdoul Aziz Fall di ko yëgal moom sëriñ Abdou Sakkoor sëriñ Basirou Jenn moom sëriñ Naar Jenn sëriñ Jiili Ndiaye di ko yëgale sëriñ Xaadim seriñ sëriñ Thierno Ñaan sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Ndiogu sëriñ Abdoulahat Jaxate ak mbooleem njabootuk sëriñ Amsatu Jaxate gépp sëriñ Ousmane Gay Gal sëriñ Alhaaji Boussa moom sëriñ Ousmane daa waa daayira waa daara Touba Murit ci njiitul sëriñ Taala Jaw waa daayira Matlabul Fawsayni doomi dongo yi ci njiitul sëriñ Mamour Diouf ba tey sëriñ bi nee na mi ngi ko yëgal sëriñ Ismaïla Diouf Noorullah sëriñ Modou Touré ca seew sëriñ Lamine di ko yëgalit sëriñ Amsatu Jaxate chef de village bu Touba sëriñ Cheikh Diaw Mansour di ko yëgalit sëriñ Cheikh Touré moom sëriñ Saliwu Touré ca Thiès sëriñ Abdoulahad Sarr xalifa sëriñ Mbacke Sarr di ko yëgalit di ko yëgalit waaw sëriñ Abdou Mbar Mbacke moom sëriñ Mbay Mbacke jaaxal di ko yëgalit sëriñ Abdoulahad Sarr sëriñ Basirou Ndiaye xalifa sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Cheikh Ndiaye Mbëri di ko yëgali Serigne Seer Thierno Gaye chef de village bu Touba Belel ak mboolem tund Touba Belel wépp bàyyiwul kenn. ba tey Serigne bi nee na mi ngi koy yëgal mbooleem ñi nga xam ne ay transporteur lañ te daan ko jàppale ci oto di ci jiital Alaaji Mbay ture di ko sant ci li wéyante di ko séntu ci lii di ñëw di ko yëgali Serigne Abdoulahad Ka maire bu Touba Serigne Lamine Touré. sëriñ Abdoulahat sëriñ Abdoulahi Silla Sentras sëriñ Cheikh Touré sëriñ Khadim Gueye sëriñ Abdoulahat Gueye ak sëriñ Moustapha Dieng Maaw Rahmati nee na képp ko regroupement benn Touba sëriñ Pape Mbaye it sëriñ baa ngi ko yëgal di ko yëgal it mbooleem koo xamante ne bi rek mën ngaa jàpp ci liggéey ba rawatina nag ci loolu jëm ci wàllu benn di fàttali bokk yi ne njëri la ak bacc ak roñ gerte kon ñi nga xam ne ay góor lañu force ak rado buñ ko fàtt buñ ko fàtte ñii ñëwit buñ bàyyi waale ay saako ndax loolu bokk na ci li nga xam ne mooy gaawal ca roñom gooñ ma sëriñ am sotu daal nee na mi ngi ko yëgal képp koo xam ne boo déggoon Cheikh Abdoul Ahad Daaru Salaam bokki barga ñu ne sëñ Abdou Lahat nga fa da nga jóg fekkiwaat ko fa nee na mu ngi la ko yëgal di ko yëgal nag jullit yëpp di ko yëgal taalibe yëpp ndax liggéeyub Serigne Touba Serigne Touba nee na pajog aajog adduna mi ngi ci sama liggéeyal ma dee tabbi àjjana mi ngi ci liggéeyal ma waqdi hawaa'iji allazina daamoo fi xidmati wa hablahum ma raamoo inna allazina saarahoo fi xidmati falahumu diyaara wasal jannati Cheikh Abdou Lahat noonu ne ku liggéeyal Serigne Touba murid yàlla war a fay te kenn nattabliwut na Serigne Abdou Lahat liggéeyal na Serigne Touba nañ dem Daaru Salaam bokki barga wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa